Awa ah, Youssou Fall dañu eggale suñu waxtaan ak Gris Bordeaux le tigre de Fass yaakaar naa ne bi nga bëree ak Bombardier lañ ne nag tigre bi mën na sëkk mu ne kon le 22 juillet 2007. Ah, Gris euh, Gris Bordeaux tu as une jàpp affaire yi nag <laughs> ñu ne Gris Bordeaux tigre de fas dafa gay bàyyiwul ba 2009 ci la bàyyi làmb ci la bàyyi bëre bi muy jubilé ñu takkal ndomb tànk bi. gars yi nag ñu boobu ba léegi Gris Bordeaux wanewul boppam maanaam ni ñu doon xaar ci moom dëgg dëgg dëgg wanewu ko. boo xool Gris Bordeaux léegi mu dem retraite kañ ngay wane. wane bi mooy lan wane bi man objectif bi ma am benn mooy dama dama def sama bopp nii euh, bi ma gars yi nommé troisième tigre de Fass dama na képp ku daan Moustapha Guèye rek objectif sama samay principe mooy dama la war a daan. mooy mhm. furli loolu la mbëri naan furli Moustapha Guèye ñu daanoon Mbaye Guèye daan ay grand frère am ñëpp leen daan man loolu man man képp ku mos a daan Moustapha Guèye rek man <laughs> bi ma amee yow tàkkusaan dana mel ne ni mbàccum gerte. saf na ci yow sàpp saf na ci yow sàpp waxuma la ay bëre nii daan dama lay dal sa kaw agressé la. Mm-hmm. Bombardier dafa daan Moustapha Guèye dama bëreeg moom dugg ci gardam xeex ak moom agressé ko. Mm-hmm. Tyson dafa daan Moustapha Guèye dama dugg ci gardam dóor ko muy bëgg tëb saako yi. ça veut dire que yooyu c'est des choses yoo xam ne dama ko mos a sama sama sama premier challenge bi nga xam dafa nekk ci man bi ma biñ ma biñ ma ma introniser rek. Mhm. dama sama objectif mooy tey képp ku daan Moussa Gueye dama la war a daan. jëlal la Tapha Gueye ay revanche sax moo la gën a doon jëlal sama. moo ma gënal ay revanche aw ma woon revanche non boobu aw ma revanche bu aw ma revanche. ok man làmb ji nii bëriwuma ay revanche ci làmb parce que tamit coow li lu muy bari nii yëpp xam nga gars yi coow li lu muy bëri ci làmb ji yëpp da ngay dégg ni Gris Bordeaux combat boo boo na defetu Gris Bordeaux rek mën naa ci teg sama mën naa ci teg baaraam. dinañ ñëw ci loolu noonu. Ah. mais da nga ni da nga doon fayul Tapha fayul nga ci Gris Bordeaux teg nañ ci seen bët ci kii ci ci Bombardier. Ah. teg nañ ci seen bët. fayul nga ci Tyson ñëpp teg nañ ci seen bët. Mm-hmm. mais Balla da koo daan mu bàyyi làmb. Balla moo daan Gris moo daan moo daan Tapha Gueye. le 3 mai 2009 Balla Gaye dañu li ci xew yëpp boobu moom fayoo ko ñaari revanche. li ci xew yëpp Sénégal mën naa la wax ni combat. sa micro. bari na combat yoo xam ne tey buñ la tey nii mën naa la wax ni loxo nit mi nga ca tout récemment sama combat bi ak Balla Gaye. loxo nit ba non sama combat ak Balla Gaye bi passé nii dañu bëri ku nekk wane ñàmbaar war a jom mais yëkkati loxo Balla Gaye ak combat boobu ni mu demee noonu comme ça nii injustice la barki Rasulullah. balaa ñu ma dugg ci combat barki Cheikh Tidiane billahi ma affaire reer la ma def. dafa lu ma fàtte sax avant ñuy ñëw ci combat combat bi taxaw na Luc Nicolaï taxawal na ko. Hmm. Gris Bordeaux ak Balla Gaye ñu woo leen teefe ñuy waxtaan Gris Bordeaux ni ko maala man tëb tëb ni ko maala man. Balla Gaye Cheikhou ngay xam ni maa ko man ñu bëriwaat. non loolu moom Sénégal duñ nangu loolu. ah dégg lu ma la mais yow combat bi gis nga ko 30 moom. ma la ci waxoon rek mais moo doon xeex xeex bi xeex bi ci yow lañ ko doon xaar. ñaar xeexu lan combat bi dama pare ci côté yëpp. Balla Gaye bul fàttali ni gars yi moom lañ defoon foofu ci combat bi. ci côté bëri bi na da demee mën a bëri lu tax bëriwul ak man. mais Balla Gaye bi ñëwoon na ah di bëri Gris Gagné. Balla 60 pour cent mënu woon bëri ak man côté boobu. parce que bëriwul li ma contact li ma bëree. ci contact boobu ak li ma préparé ni mu indi karaw mënul woon am ci benn plan loolu di jëm a négocier nii ñu dem ci combat bi jeex ay avertissement yoo xam ne joxuñu ko ko boo xoolee combat bi durant tout le combat ba léegi projet daaw ba ma ko ma ko log teg ko ci kaw il m'a donné de coups yoo xam ne ay xam non combat bi nag Balla moom da nga ko cee lancé défi moom mu relevé défi parce que da ngaa nga ne ko dama lay duma. mu dem jàngi xeex. Balla mu daw songu ma. sama tey man tey xam a xeex dëggantaan xam ñaar ñaar ñaar koy def. non da doon attaqué yow yaa doon ma ko déclenché gauche droite mu songu ma sama digg xeex bi muy wax noonu bëgg na ma jumloo rek pour songu ma songu na ma plus fois ci biir combat bi ma intercepté ko sama digg coow li ñuy wax dëggantaan bëre daan wël bi la ça veut la ñu bëri keroo benn mbir mérité wu ci diw yaa ma man ku ma joxoon ndam ci combat boobu barke Mouhamad billahi fi ma toog laa koy dindi ba mu set rek. non. billahi lazi laa ilaaha illa. mais mais Balla Gaye nga doon ndam loolu mooy la. mais dese woon pare 60 pour cent. gaa naan Balla 60 nga bëreel. waaye mbër bu ñu jox avance pendant combat boobu diir na un parce que donc boo combat boobu da nga koo jékku rek parce que ay ndigg yu méttee. jékku lan ay taabak. donc jékku da ko dugal ci euh, yóbbu Guinée yóbbu nga ko Guinée yóbbu ko ci ba ma juddoo si sama yaay ba léegi barki Cheikhou Tidiane bu nekkee mës naa toog ci sëriñ naka defal ma mbër mi dara yàlla bu ma gisante ak Seydina Muhammad billahi lazi la ilaha illa hu man man sama mbiru bopp kan fan laa ko lay sama mborom yow ma xiyam toog ci mbër na la mbiru mbër man du ma ko lijjanti lijjantiwuma sax mbër mi may bëre musuma ko def sama àddina man mii kay maay aaru kay ut samay ay bagage su bopp pour sàmm sama bopp waaye mbër mu may bëri dama bëggul sax xaw ma ko sax dama dul bëri sax bay lijjanti yaayu turu yaayu mbër. mosoo liggéey mbër. barke Mouhamad waaye loolu mooy lan. ci Antoine waaye dégg lu ma la wax. mbër fii nga toll nii. lu ma la loolu bokkul ci suma vocabulaire man sama bopp man mii maam sama mbirum samay mbir man la doy man maay jëm a sàmm sama bopp pour que benn benn dara bañ maa cof te sëriñ bu ma jàkkaarloo loolu laa lay wax sàmm ma aar ma gannaaw yàlla ak yonante bi jox ma yu may jëfandikoo yu ma baax mais nag lay dem ca làmba ja hmm. yow daal fexeel bu ma fexeel daal bu ma demee naa fonctionné kenn bu la kenn laal la dox ah. mais nag ay lijjanti mbër barke Cheikhou Tidiane mosuma ko def sa koom ak Balla Gaye dox na wala doxul loxo yi dox nañ wala doxuñu non mais sentiroo dara yàlla non combat ba je me suis préparé d'une façon boobu préparation bu ma gën a préparé hmm. préparation boo xam ne dafa ànd ak sénérité ah, xam nga dafa dañ ko teg ci tempo moo préparation da dafay bëri ay njalaxaan ak dugal mais préparation bi dafa strict dama dama dama dama dama dama dama nekk ci tempo boo xam ne. dangeen ngeen ko teg ci yoon daal waaw man commencement parce que man dama jël engagement boo xam ne xam nga maanaam gëj naa koo jël ci ay engagement wu combat. Mhm. loolu moo tax tey moo tax keroog lu mën lu mënoon di xew rek. mooy maa ngi ak sama ma xama xama léegi bu ngeen demee ba biisaat ko bañ ñëwoon tey da ngeen koy biisaat. état de forme bi Gris Bordeaux yoroon est-ce que mën na ko amaat li nga andi woon keroog ci côté dooleel ñëpp jàpp ne da waroon a daan Balla Gaye est-ce que Gris Bordeaux forme boobu noonu mën na ko amaat sax ci li des ci carrière am. non je te dis parce que ñëpp dañ ne waroon na daan Balla Gaye. non xam nga làmba combat boobu li mu doon pesé ci man la moo tax je me je j'étais xam nga dama dama nekk ku prudent ci combat bi. dafa diisoon ci yow. waaw boo xoolee combat bi dama prudent trop. mais am na benn instance bu ma acharné woon ci kawam sax parce que Balla bu combat bi bi waay jëpp Balla ba ngay nooyee bakkan bi 30 minutes yoo xam ne est-ce que gis nga sama président ban gisatu woon nag. gisatu ma barki Mouhamad mënoon naa bëri 10 minutes te Balla pare woon na ci combat bi Balla boo gisee gars yi ñu ngi ko defal négocier li des ci combat bi am na benn avertissement dàq naa ko ba dernière minute yëpp dëpp naa ko sol jëm ko génnee suuf pour mu am quatrième avertissement waa ji jox que man ça veut dire que boobu. arbitre bi moo parce que j'ai li mu a def dañu bëri amul benn sati amul boo ko faralee Balla wala nga faral Gris Bordeaux ah, di nga am satisfaction. kontaan nga parce que 30 minutes un poids deux deux poids lourds yoo xam nekku fa ji léewtoo di négocier dañu défoncé xeex bëri lépp li nga soxla ci làmb rek keroog am na mais tey man keroog. di partee combat bi arbitre bi même perte le combat bi. mais Balla Gaye. bu ko doon bëree rek gërëm wax rek honnête. nga ne Balla Gaye bi nga doon bëreel pare woon na wala pare wul woon. mais mooy ku pare ku pare ku bëre. Balla Gaye bu bëree ak Modou Lo ku bëree 30 minutes ku bëree 30 minutes. mënoo bañ a pare ci combat. mais Balla Gaye bi bëree ak Modou Lo ak Balla Gaye bi bëree Gris Bordeaux est-ce que benn la. parce que. Balla Gaye bi bëri woon ak. non man ci boppam maa man su ma paree. noo mënti indi da ngay am par jafe-jafe. Gris Bordeaux bu pare laa la wax. Ah. foo mënti dem ci àddina. demal foo yaakaar boo ñëwee da ngay am par jafe-jafe. moom da pare na instant bi moom. waaw ah, déglu ma dama la man su ma paree laa la wax te ñaanuma yàlla des sama carrière may jël pare combat te du ma bu su ma demee su ma sumee ko ñëpp duñu taf seen gémmiñ ñaanatuma ko yàlla. léegi. bu ngeen ko biisaatee yéen ñaar nag. non ko biisaatee mooy loolu mooy daj dëpp gi. non ci dugg. Tapha Gueye du ko digal. kookal la Tapha Gueye. non yow du la ko digal. Mbaye Gueye du la ko di. Balla Gaye bu xamoon ne fii dafa neex wala dafa nooy. lu leer laa la bu xamoon ne fii dafa nooy xam nga mbër balaa nga koy yeb wala nga ñeme ko il faut ngeen ruŋ ko su la ko leeroon fi nooy na népp balaa kenn di wax combat bi mooy bëggaat combat bi. yow bëggaat nga combat bi. yaa ngi lay la la luy bëggaat na combat bi bala ngay Gris Bordeaux ñu war a leeral mbër tànk runkunk yanoo ko dóor ci suuf daanoo ko. bu ngeen uh, bëgg bëgg. non loolu dama ne la bu taxawoon tey beneen combat bu taxaw du safee du saf kenn la ko hmm. ah, ñu wax dëgg dëgg combat boobu cinq promoteur dafa jaay bay jaay ay suuf. cinq heures bi fees na. léegi na combat bi deux cent millions jaay. déglu ma dama ne la yéen xam ngeen ci lépp yéen waa Lutte TV Buzz xam na lépp lu xew. Ah. dama ne la. waaw ah. cinq heures stade fi fees na guichet fermé. waa ji di jaay bay jaay suuf xoolal grand combat yi fi am na bay jaay. nag nee nañ dañoo namoon Balla Gaye ay amateurs ñoo ko namoon Balla Gaye da ngay wax sax mu ne la nee na nee na nee na stade bi muslu ci moom. kan si. nee na ma nee na ma amitié day muslu ci man. non moom may wax loolu man man fukki penc yeeg ñaaree ma sëq. Hmm. Hmm. fukki penc yeeg ñaaree laa dëkk dikku Ndakaaru laa dëkk maintenant laa dëkk juddoo fa fa màggee fa su ma jógee Ndakaaru muy jóg. mais promoteur bu bu démarché combat bi instant bi da nga bëree moom. ma dama la Balla Gaye Gris Bordeaux bu taxawee beneen combat bu taxaw da ngay da ngay da ngay maanaam kii lay doon photocopie lay doon. man de dama ni bu ko promoteur doon démarché est du du du taggatémbee ci yow instant. yow ñëw nga laaj lu bari dafa am ñu oh. muy àndal. non ah, mais dafa am lu non am fa la di dëgëral combat bi naan wéy ñi mu àndal dañoo mën làmb. nan lay promoteur bu ne am nga koy àndal. même promoteur bu nekkee promoteur bu nekk ci côté wala doon mais amul problème. combat ba taxoon na nekk seen biir kër. même sama papa lees. waaw du ko lees. waaw sama papa. suñu papa yàlla suñu papa. amiin maa ngi koy ñaanal wér mu gudd fan. yaram yaramam dëgër muy joxe ay soxlaam. amiin même moom bu ma indiloon avance pour combat ak Balla. parce que du dem te bàyyiwoo ko man aw ma problème yooyu. bu ma la bu la joxee avance Balla nga jël. waaw dégg la du dem du génn kër gi. mais parce que combat da ngay boole ñaari maanaam mbër ñaari mbër mën na yóbbaale benn mbër mais nga ma ñaari mbër yu am ginnaaw mën naa la waata ci yàlla ni loolu rek mën na révolutionner làmb làmb bul fàtte ne année boobu combat Balla Gaye Gris Bordeaux moo révolutionner làmb ji keroog année boobu làmb ji dafa nelaw. Mhm. mais mi ngi mel ni combat Gris Bordeaux Balla mi ngi mel ni équivalence su quatre combat amoon si saison boobu. Mm-hmm. li ma lay wax waxuma ko parce que maa doon bëre de mais nañu waxante dëgg ñaari mbëri ku ci nekk danga nga matal sa contrat bu mot sëkk. gars yi nee nañ Gris jaay combat rek la man mais bu kenn dootu ko xàmmee. jaay combat waaw nee naa Gris ku ko tëgg jaay sa. Ah, man macha allah bokk naa ci mbër yi ñuy promoteur di gën a sollicité loolu nag dara wanoo ko loolu benn mbër da am ginnaaw am public dëkk ci gox. mën a yëngal. mën a yëngal nag te nag saa yi Gris Bordeaux bu tàlle sa ngor bi waxuma ko pour damay vanté wu mais nag làmb dama ko jox ak ba mu sëkk. de face bu sax. barki Seydina Mohamed saxal ko ba sax dem jege géwél gi waa ñu yóbbu ma gin taaj taaj may lu yooyu tamit. gars yi dañ koy namm ci. tuus mooy mooy ban tuus kan moo ko doon tuus. kooku nag. <laughs> soo naan loolu tuuru face la. non loolu xëy na loolu seytaane la barki Rasulullaay. yenn saa nga dem ci yi maanaam bu ma ko bu di yóbbu parce que sama suufu xol damay damay kontaan sama dégg loolu dafa bokk ci làmb. lébu gi sax sama benn côté bi dafa nekk yoof ci ndóoyeen gi benn bi nekk si séeréer si séeréer saafeen sama di ka man boo ma laalee ci lébu gi damay dem boo ma laalee si séeréer benn la mais encore une fois làmb lool rek la te mbër yàlla xam ne bokk naa ci mbër yi ñu gën a sollicité ci làmb ji du dara mooy làmb yàlla xam ne li bis bu ma jëlee avance dama cay def la war. dama cay def la war. fulla ak fayda. mas nañ la jokk ci gàlla ci combat. làmb non man mu musuma ko def suma bopp même même bu ma sentir ne dama ñëw ba ci làmb sax sama yaram neexul damay sentir nii coono la wala pression wala yooyu yooyu mais deful nekkul lu nekk sama bopp parfois nag ñii la jege moo naan la tey doxul wala non comprendre mhm. mais musuma ko lépp nag ci bopp la ah. lépp ci bopp la am na mbër yoo xam ne dañuy lu ndaw rek day yàq seen combat te man nag macha allah yàlla may na ma nag tranquillité ci combat ba nga xam ak ak te li ma gën a jafe ci combat keroog sama combat Balla Gaye moom may mooy dal gaaw ma énervé su ma su ma énervé ci combat rek damay am lu bëri lu ma manqué. Mhm. combat boobu dama doon li may gis ci combat bi mooy dama bëgg mooy kenn bañ ma déconcentré. Mhm. am na solo. te du début à la fin amuma kenn déconcentré moom moo tax ma bëree noonu combat bi. am na solo.